mbokk yi ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ñaanal sunu sëriñ sunu lépp ki ñu defar ki defar sunu àdduna muy sëriñ Ahmad Saxiir Lo yàlla na yàlla dolli ay leeram li tax ma wax loolu mooy man allamaka xarfan waahidan fa huwa mawlaak dañoo nekk gone yu ndaw sunu waajur sëriñ xaadim xawa ba nekkoon ku bëgg alxuraan yitteem nekkoon doomam jum jur mu fas yéene nga mokkal alxuraan loolu moo ko boole woon ak sëñ mot saxiir fa tabaarakallaahu ñu jaar ci loxoom bis bii nag damay wax ni nekkul bisu tey ay discours bisu jëf la di nuyu kilifa diine yi fi teew di waa kër maam Ahmadou Kabir Mbay nga xam ni lii lépp ndigal rek moo ko waral ndax Sëriñ Tubaa dafa wax ni laa tafaalu shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sa'ni bu leen jëf dara lu àndut ak ndigal ndax jëf mu ànd ak ndigal sart la ci la ngay jëf suñu borom nangu ko moo waral jataay bii keroog bi ma taxawee ci wetu aas ci kokki wax ni ko le premier danaa fexe ba yalwaan yalwaanal daara ji fexe am téeméeri million asgor bu waxee tënk na boppam li fekk jëful yeewul boppam te kàdd googu ba mu jógee bari na ay ruubekat yoo xam ne dañ ne woon bës la bëgg ñun soxlawun bës ndax bokk ci sëriñ tubaa mokkal alxuraan te nga mën a yëkkati sa loxo ni sëñ mut saxir moo ko def ci yow wóolu sa bopp ni bu dee alif lam mim zalikal kitaab ba minal jinnati wanaa si kenn gën ko mokkal defe na ni fa la bës mën a yem ma waxoon aas loolu tey am na cent million soixante quinze mille francs fa takbir. allahu akbar. bu fekkoon ni bu fekkoon ni ñi doon wax ñëpp danaa joxe danaa joxe bind naa leen kon mën naa ni tey mën naa fee taxaw ni as danaa la jox cinq cent millions waaye ñun duñ doxe noonu day am nit ñoo xam ni dangay am yëg-yëg ci seen xol xam ni ñii lu baax rek lañ bëgg. xam ni lu baax lañ bëgg te lu baax rekk leen yor nga tenir considération ci ñoom liste bii ma yor maa ngi koy tàmbalee ci jëwriñ sëriñ mbàkk yu fay di jëwriñu sëriñ Tuubaa nekk fii ci ndakaaru ni ma li as woote ni mille personnes la bëgg kenn ku ci ne joxe un million man joxe naa ci un million Moustapha Sow bu micro sen joxe woon cinq millions waxoon ma ni ma bërki dee mu ñu daje kër soxna Bali taxaa mu ni ma danaa ci dolliwaat cinq millions ni ma nag dama bëggoon ñu ubbi kont ci banque bi buñ ci ubbee rek ñu verser ci xaalis moo woo naa Baye Modou Lo mii ba wax ko ko kon Baye Modou ñu ngi lay sonn ci loolu sama benn wëllëre bu ñuy wax Mamadou Racine si ni ma joxel naa sama baay amala si nga xam ne 73 la fi jóge 5 millions joxel ndeyam Adja Marème Coulibaly cinq millions muy di millions te nag wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallah te Sëriñ Tuubaa wax ni wa arxabul asyaai lil amwaati raddun ila dunia maal xayaati walaw suwayaatan faqat li yaamalu saalihatan tanfahum in xafalu nee na ña dem lenn lañ soxla mooy dellusiwaat àddina ngir jëf benn jëf bu baax kon ñun ñii nga xam ne suñuy waajur dañoo dawlu ñu dugal leen ci wajaahidu defal nañ leen loo xam ne ñoom mënaluñ ko seen bopp ku ñuy wax Nasiru Sàmb dëkk Daaru mussi cinq millions Africa Bulum di taalibe bi maam Thierno di ku bëgg lu baax am na sama benn xarit boo xam ne dañu buñ tudd turam joxe na cinq millions def naa yépp ku ñuy wax Dame Diané ni ma joxeel naa sama ndey Adja Amiloo Gueye un million joxeel baayam Alaaji Njool Diané un million ngir ñu dawloo ko ca barsax fondation Soxna Baali Muntaxa un million seex Diop indi na ko di sant Cheikh di ko gërëm délégation Serigne Muntaxa mi ngi ci yoon wi ñëw muy son koso balaa yàgg dana agsi xaadim ba Bloc Afrique ak waajuram di soxna Oumy Gueye joxe na million millions Lamine Camara transitaire joxe na cinq millions soxna Moomi Kebe ni ma joxeel ma un million ci alaaji Babacar Kebe Njuga baayam ak Marème Dieng Sall un million muy deux million am na sama benn xarit boo xam ne ne bu ma tudd turam moom joxe na un million ki ma waxoon sànq joxe na cinq million ki ma njëkkoon wax ni bëggul ñu tudd turam ku ñuy wax xaadim loo di sunu taalibe di liggéey ca daaray kokki ndax maa ngi ñëw ci loolu ci daam loo ndax dafa am lu ma waxoon ni nag ko jàppale ci yalwaanal ko ko lu jëm ci cuisine ba bu may jeexal danaa ci dugal loolu xaadim loo joxe na un million ku ñuy wax ma kottu jong di Noël di xaritu as ndaw joxe na deux million sëriñ maam Cheikh Mbacke bu AES joxe na un million sëriñ Moustapha Mbacke sama rakk ñu bokk ndey ak baay joxe na un million Bamba Ndiaye SA joxe na un million soxna Musli Sall di sëtub sëriñ Fàllu ni ma joxeel ma ci kokki cinquante mille ku ñuy wax Doro Gaye nga xam ne bi ñu tàmbalee yëfi ci moom lañ njëkk a dem man ak ñoom Baye Modou mu joxoon ñu 5 millions francs CFA am ñu dajale 5 millions joxe ko ak samay doomi bopp sama doom sëñ Modou Mbakke ak soxna Sooda ak sëñ Sidi kenn ku ci ne 1 sama waajur soxna Fatou Jonn nee na nañ ko joxeel 500000 sëriñ Saaliwu mu sëriñ Xaadim Awa ba 1 million boo boolee loolu day nekk. ak ñi nga xam ne joxe nañ te bëgguñ ñu tudd seen tur day nekk cent un million Farba Ngom nee na dana joxe deux millions ñi ma tudd fii ñëpp nag bu ma indi woon sama carnet de chèque dama koy génne bind ko joxe ndax wóolu naa leen kenn duma ci wax lu dul def ku nuy wax Souley jaan joxe woon na un million delluwaat na joxe million millions Abdoulahat Ka maire Touba dani bu ma ko tudd waaye danaa ko tudd ndax day taalibe Sëriñ Tuubaa di nit ku baax woo na ma léegi ni ma danaa joxe un million ci daaray kokki ndax man awma lu dul alxuraan daara jama ma sañcoon ba ma ko sañcee ba léegi tey la ci fanweeri at kon Abdoulahat Ka ñu ngi koy sant di ko gërëm waa kër alaaji Ndaama Fall muy Moodu Fall ak Mouhamadan nee nañ joxel nañ seen waajur wi daw la alaaji Ndaama Fall un million Seexu mi directeur général Sonatel wax na ma ci gémmiñam dafa demoon beneen bu ñëwee dana recevoir waa daaray kokki li fondation Sonatel di dimbalee mu yëkkati ji dimbali ci daaray kokki Tayiru Sarr di sunu xarit di suñu wëllëre nee na talaata dana gisanteeg as la ma koy jox mu jox ko may gërëm sëñ Abdoulaye Dia Ablaye yow ak sa mbokk muy mustafaa dañ leen di sant gërëm leen wallahi mbokk yi salaasa tijaaraatin laysa maaha xasaara ñu ni ban ak ban mulaazamat tilaawatil quraan mooy daaray kokki wal muhaafasa alayha ak ki taxoog julli wal infaaxu fi sabilillaahi ak mboolem ñi fi daje ñépp indi seen alal joxe ko ci yoonu yàlla yàlla wax ci alxuraan ni inna lazina yatuna kitaaba laahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum wax wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuura ca suuratul faatiri laay wax yàlla ku ko lebal mu fay la as ñun sagal nga ñu ñun ñii jànge kokki amatuñ sag fay ndax lii nga def bëgg a dimbali askan wi moo tax nga def ko waaye wallaahi laxam si mën naa wat yàlla nii bu fi kenn joxewuloon un franc un milliard da ko génnee def ko ci kokki ndax kokki jaral na la ko la nga def ca kokki ëpp na loolu daam loo mële keroog ca ndaje ma dafa ñëw ci man ne ma dama bëggoon nga yalwaanal ñu ku ñu jox ay cin pour cuisine bi ñuy def ca daara ja moo moog rakkam di sëriñ fàllu galas loo di gaynde kokki di jàmbaar ju baax di ko yàlla baaxal ak aadama loo ñu dondeloo seen baay moorloo yàlla dogal ma génn dugg yalwaan am mbokk mu yëkkati ni ma xoolal cuisine ba la ca des ñu xool ko muy cent trente et un millions mu bind sa jox ma ko allahu akbar man kokki rek sama yitte sama soxla mbindeef du ko xam waaye soxlay kokki nag danaa ko yuuxu ba ñépp yëg ko jërëjëf Mbacke ndax oo ma lu dul kokki jërëjëf as ñi ngi lay sant sëñ Fallou loo jërëjëf loo bég nañ ci yow yàlla na yàlla bég ci yow sëriñ Makhtar Naar loo lii lépp liggéeyama sëriñ Mut xiir ndax moom yàlla da ko wutal ay doomi xol te doomi xol ñoo ëpp pas-pas ci seen waajur muy sëriñ maxtar Naar loo sëriñ Ibra Jaxate jërëjëf mm. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm aas yow loo woote ñëpp ñëw ci ndax lu nit nekk nga nekk ceeg moom te wolof yi dañuy wax ni koo xamul noo koy def nam la dafa tax bëgg a dimbali réew mi moo tax nga woote lii kon ñi ngi ñaanal président de la république Macky sàll yàlla defal ko jàmm réew mi yàqu na ba nga xam ni ku defal nit lu baax kenn amatul courage sant nit ndax ragal la ci ñi ragal kenn amatul courage nit defal la lu baax nga sant ko. président bu yëkkatee alalam jox ko daalee kokki ñun dongo yépp la ko defal kon ñu ngi koy sant di ko mm-hmm. gërëm di sant première ministre Amadou Ba fàllu wax na ma ko joxel na bàyyam ja dawlu un million joxel ndeyam ja dawlu un million joxel boppam un million sëriñ Abdoulaye Dia yow ak sëriñ Moustapha Ndiaye mm-hmm. yal na leen alxuraan fay amiin incha yal na leen yàlla jàppale sant nañ leen amiin gërëm nañ leen amiin sunu xol sedd na as dimbali nga ñu ajaa mm. liste baa ngi nii ok dama ko jox aas ak tur yi yëpp ak numéro téléphone yi bu sooba yàlla dès lundi balaa semaine bay jax xaalis bi dana daje ñëw ci moom incha allah. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Ahmed Nasiruddin Ahmed Saloum Dieng joxe na 150 000 250 000 moom ñu ngi waajal bis bi muy def ca Thiès.